والقلم وما يسطرون euh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ngi fii tey ci Tamba ci biir département bi waaye ci biir commune bi tamit euh, ñu ngi fi toog nag ci ndigal coordinateur régional mooy Moustapha Ahmadou Wane xam nañ jamono bi mu ngi fële ci Makkatal Mukarram ñu ngi koy ñaanal foofu yal na ko yàlla sàmm moom ak ñu mboolem ujaaji yëpp euh, ñu ngi leen di dalal ci jàmm euh, ñu ngi leen di yéen sëriñ daara waa Tamba yi ñu ngi leen di wax bisimilla euh, ñu ngi tatagal tamit suñu gan yi ñoo xam ne ñoo bàyyi ko ba Tuuba semaine bi yëpp ci lu mel nii lañuy dox lu mel nii la ñuy dem mais yàlla dogal na tey démb lañ fi egsi si Tamba mais bu ñu egsee fii ci démb jokkoo nañ ak ñoom macha allah ñu ne dañuy dallu ba suba ñu dajee ci benn bërëb ñoo xam ne lu ñu lu leen tax a jóg depuis Touba ba fii ba Kolda ba Ziguinchor dem nañ raison yëpp tey la ñuy yàlla tey la leen yàlla indi Tamba ñu wax leen lan mooy muujib moo leen indi fii. délégation bii nag euh, ku ko jiite mooy Serigne Cham Mbakke borom Daaru Salaam mu ngi nii toog ak euh, Serigne Mamoun Fall. ñu ngi ànd ak tamit sëñ Mourtada gay ñu ngi ànd ak tamit Modou Faye euh, délégation bi moo bàyyi ko Touba ñëw nemmeeku seet fii daaray Tamba euh, ñu ànd ak nag ndigal c 3 es xam nañ daaw ñëwoon nañ fii mais daaw buñ fi ñëwee dafa am ay quelques daara rek lañu demoon nemmeeku seeti leen jox leen téere yi ren nag ñu ne dañ ko bugg a yaatal nañu leen xoolal sëriñ daara yi ñu dajale leen ci benn bërëb ñu ñëw seet si leen loolu moo nekkoon tànk yi ñu jox leen euh, kaddu bi euh, ñu nuyu gannaaw loolu ñu wax leen euh, kii bi salaamaaleykum wa rahmatullah di leen jaajëfal ci teewaay bi ngeen ñëw yéen ñëpp teew ci jotaay bii nga xamante ne ni jotaayu alxuraan la ngeen bàyyi ko ci liggéeyu alxuraan ba ba tey ñu ngi wax ci turu société bii nga xam te ni moo tuddu C3S C3S barabu liggéeyukaay la société la boo xam ne day yëngu ci jaay ak jënd ci jaay aluminium ak verre ak yu mel ne moom yàlla dogal na sax am na Tamba moom neex naa neex naa expliqué fii ci Tamba euh, société boobu nag yàlla dafa dogal ne ñi ko moom waa daara lañ comme ñun dañ doon jàng daara di bay jàngale waaye nag boole ko ak bi yaxantu ci marché ba suñu boroom daal di barkeel yëngatu ba ba mu yaatu ba egg ca lépp lu war ab société bu nekk ci am réew mooy da ngaa war di jël ca liggéey ca société ba di delloo ci askan wa lu bokkut ak jël ay liggéeykat ak yu mel ne ñoonu am na ñoo xam ne buñ koy def dañ koy def jëmale ko ci sport am na ñoo xam ne bu koy def jëmale ko ci euh, musique ak yeneen ak yeneen comme que nag yàlla dogal na waa daara lañ ñu ne kon li ñuy delloo ci askan wi ñun dañ koy delloo ci alxuraan bi loolu amee tamit bi loolu bi loolu amee tamit ñu gis ne kon ba ñu ne kon ci ban fànn la ñuy jàpp ci ban fànn la ñuy ñëw jàppale ci alxuraan jàppale ci ci daara ci alxuraan ñu mu ñu gis ne Sénégal suñ borom defal nañu tawféex ba nga xam ne eh, mokkal alxuraan foo dem ci réew mi am na fa alhamdulilahi rabil ñu gis ne tamit at yi mujj yi wàllu taj bi sax suñu borom def na Sénégal ñu ngi ciy góorgóorlu ba àdduna sépp fu ñu dem ñu xam ne Sénégal ñu ngi jàmbaare eh, kon foofu mu ngi dox bu baax a baax alhamdulilah rabil alamin ñu gis ne nag wàllu bind moom day fànn goo xam ne ña daan def sax far yàlla dogal na ña ngi koy waaj ña ngi koy wàññi ña daawul def nag aada wuñ ko sax far kon ñooñu kenn waxaale wu leen ñu nag te gis ne bind dafa am lu bari taxawaay bari bu mu am ci jàng alxuraan loolu sëñ Saam dina ko leeral wàllu mokkal gu dëgër ak ak yeneen ak yeneen yu bari kon loolu société bi gis ne kon bind alxuraan daal yaatal ko ci biir réew mépp kon loolu liggéey la boo xam ne mën na cee jàppale waa alxuraan kon loolu mooy taxawaay bi nga xam ne ni société bi moom la taxaw euh, comme que waa daara la ñu ànd ko ak waa daara bu ko defee loolu moo waral lépp ñu jël ko teg ci loxol euh, waa waa fédération bi ak waa rabita bi nga xam te ni lépp ñoo ko yore ñu ànd ko ñoom léegi nag kon nan la ñuy jàppee ci yaatal mbindam alxuraan mu ñu gis ne euh, daara yi daara joo ci dem la ci ëpp ci daara yi téere yi ñuy jànge yi xale yi jànge téere yoo xam ne machine moo ko imprimé machine moo ko bind moo ko ma imprimé sax mais machine moo ko bind xale mënta jàng ci machine mënta roy loxo loxo machine kooku kenn mënu cee jàng kon xale bi boo ko bëggee jàngal tam mu mu muy man di xool man di roy faa mu xool loo xam ne loo xam dina ko man kon loolu ñu ne kon nañ fexe kon ba téere yii ñu bind ci réew mi mu amaat mu ci daara yi bu njëkk am na téere bu ñu doon wax sëñ jëmb siise bu téere sëñ jëmb siise ñu bari xam nañ ko ci suñu boor yee moom moom la moom lañ mooloon ci jamonoy Senghor indi ko ci réew mi ba mu bari fi waaye ba mu demee ba jeex kenn gisatu ko pour nga gis ko dootul yomb kon euh, société bi kon mu wax ne kon naa fexe ba euh, ay téere mu jàppandi ci daara yëpp loolu na tàmbali nañ ko daaw jéeg indi tabaar ak ak amayata ren tamit ci la ñekk ba léegi indi ay téere yoo xam ne dañ ko plastifié ngir bëgg mu gën a yàgg tuuti waaye dañoo tàmbali liggéey boo xam ne dafa eggagut mooy bind kaamil bi ba mu jeex loolu nag yéen ñi ñëpp ñu xam alxuraan xam nañ ne topp ab téere ba mu foo ko yóbbu ci àdduna kenn du ci am lu mu wax boo ko gaawtoo du baax loolu ñu ngi ci tam mu yéen a jikkoon mooy ñu fexe ba loolu mat sëkk bu ñu dikkaat bu ñuy dikkaat ci yéen day nekk ay limi téere yoo xam ne day matale mboolem daara yëpp waaye nag comme que tàmbali nañ ko te boo bàyyee noonu rek ñëwuñu ñu fàttali ñëw fàttali mën naa am dañuy jàpp ne pas-pas ba daa jeex wala wala liggéey ba daa taxaw moo tax kon ñu buñ dikkee tamit toogee benn at ñaari at ñu ñëwaat ya yaakaar nañ ne bala ñu fee ñëwaat incha allah dana fekk li ñu bëgg ci mu namm ko te jublu ko loolu sotti mooy téere bu mat sëkk. kon loolu mooy benn xaaj bi société tamit mu gis ne bind alxuraan ab xam la. xam-xamu rasm ak gàtt incha allah sëñ Sam dina ko leeral loolu tamit nag kon dafa aajowoo formation mooy ci sëriñ daara yi ak ci xale yi kon loolu tamit société bi tàmbali na ko daaw doon ko xool nuñ koy defee ba am ñu ko defal ci diggante Touba ren ji tamit ñoo ngi ci buñ gisee ba fo ba gis ne nii ñu koy defee baax na fa saasa rek dañ koy yàkkale mu jëm ci mboolem eh, mboolem région yëpp kon loolu tamit société bi mi ngi ci mooy wàllu formation sëriñ daara ci wàllu rasm loolu tamit sëñ Sam fi ñu ci toll incha dina ko leeral eh, ñetteel bi nag mu des si boo xam ne moom moo ci gën a siiw mooy concours yaatal mbindam def rek bëgg mu yaatu bëgg mu sax bëgg mu siiw da koy boo ci defee ab ab rek day tax mu gën a mu gën a kon concours bi moom ñu ci bari moom lañ dégg di ko di ko gis waaye li ma leen wax ñi ci liggéey bind ak yëpp nit ñi xamuñu ko kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy li ci am ci wàllu mooy fànn yi nga xam ne daal société bi mi ngi ciy société bi mi ngi ciy yëngu mu te bëgg mu yaatu incha allah taala kon euh, foofu laa yem rek ñu xam ne kon euh, ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi kon ñu jox sëñ Sam rek boo ko defee mu leeral mboolem li ci aju yëpp ak yi di leen ziare bu baax di leen euh, jaajëfal ci yitte ñi ngeen def ba ñëw fii xam nañu ne ab sëriñ daara du am jot xam nañ ko bu baax ndax liggéey bu bare bi nga xamante ne bii moo moo moo ne ci kër gi kon ñu ngi sant loolu ñu ngi leen sant bu baax di sant itam te saxit mi nga xamante ne bii moom moo ñu dalal ginnaaw bu euh, am Moustapha woon génnee ñu xam ne ñun ci fédération bi dañuy liggéey ay at yu yàgg a yàgg ñu ngi nekk man fukki at euh, li jëm ci wàllu concours ci réew mi alxuraan man maa ko yore ci fédération bi Moustapha woon comme mooy suñ président actuellement nii li suñ maamoon waxee fi ñu toll nii ku bëgg a liggéey ak daara ngir nga noppalu da ngay jaar ci fédération bi ak rabita bi daanaka mën nga ne mooy ñaari mboolo yi nga xam ne lépp lu ëpp ci daara ci réew mi rek mi ngi ci seen loxo looloo tax biñ ñëwee bëgg a liggéey liggéey bii jaar ci réseau yi yi féete sud ñu jaar ci fédération bi kon buntu bi mooy Moussa Wane nekk fi waaye Saïd mel ne mi ngi fi ndax dara euh, taxawaay bu ci war rek def na ko sana <laughs> euh, maadiya muy daaw daawaati jekkoon ñëwoon nañ fi biñ ñëwee dem nañ ci ay daara yoo xam ne dañ demal suñ bopp xool aliwaya xool nañuy jànge euh, kii yu bari Euh, ren jii nag biñ ñëwee dañ xalaat ne comme tabaski gi agsi na te xat na ñu ne nañu dajale suñ mbokk suñ daara ci benn béréb waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg leeral leen ko bañ xam ko bu baax ba kenn ku nekk xam ne lii sa mbirum bopp la def ko sa yitte def ko sa sa sa taxawaay loolu mooy C3S euh, dafa jóg ngir ja ngir dimbalante ak sëriñ daara yi ci wàll goo xamante ne bii mel mel na ne euh, am na ay faayu ca am muy wàll bind alxuraanul karim xam ngeen alxuraan bu agsee ci ñun bind moo tax mu agsee ci ñun waaye maam yi jàppale suñ dégg suñ diggante yonent bi jeex nañ bu yàgg-yàgg kon bind alxuraanul karim moo ko téye ba ñu ñi ba ñun nii ñu jot ci suñ ci far farluwut nag di ko bind comme na ko mag ñi doon binde mën nañoo dem ba maanaam diggante bi dana dagg danañ dem ba ña mujj ñëw mën nañ ko fee ñàkk fekk ndax tey bu neexoon tubaab yi ci seenu caacaa ñu ne aaye nañ képp ku képp ku maanaam mool benn téere te su boobaa tam nit euh, réew yëpp dañ koy def ndax ñoo leen yilif su boobaa na loolu soo amoon tey ñii bind lii mbooloo mu du jeex lañ ci réew mi danañ mën a bindaat alxuraanu karim ba mu melaat nii mu meloon ndax am na fi loolu nag lañ bëgg mu continuer bañu jeex loolu aada la joo xamante ne bii moom bu dee fële ca Touba ak li ci aju suñu aadala da ngay boo mokkalee ba pare bala ngaa génn daara ji gan jaa néew da bind ñaari kaamil jox benn bi sëñ bi jox benn bi ki la doon jàngal doora a jàngi xam-xam ñun loolu lañu aadoo moom lañ xam loolu loolu moo fi téye lii ngeen gis nii ba nii ah c 3 nag bi mu jógee ngir jàppalante ak daara ci wàllu bind ak li ci aju daa créé lu benn concours bu ñuy wooyee yaatal mbindum alxuraan loolu mooy bil arabia mooy musaabaqa wataniya fii rasmi alquran alkarim wa hifdihi concours lu boo xamante ne bi dafa ñëw ngir lan ngir maanaam dekkalaat mbindum alquran karim ak xam-xam yi ci ajo concours boobu nag ngir nga bokk ci am na man nañ ne am na ñeent yu mu laaj yoo xam ne benn mënu ci ñàkk ba ci njëkk mooy dangay mokkal alxuraanu karim jépp ba mu jeex ndax laaj yi bu ñu koy laaj fu ne la ñuy laaj te laaj ci ay enveloppe lañ koy def kaste ko teg ko nii candidat bu ñëwee enveloppe bu mu ubbi lu mu ca fekk lool loola loola lay bind te bu bind du ko xool kon laaj na mokkal day mokkal kaamil bi yëpp mokkal bu wér soo noppee itam faw danga nga xamee almu rasmu mooy xam-xam bi nga xam ne sahaaba yi noonu lañ bindee woon alquraanu karim ci jamono yi sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ne bind alxuraan karim tawxiif yi la maanaam régal yi daa bari lu mu wuute ak régal yi ñuy bindee xiya maanaam imla xiyaasi ci langue arab dafa bari lu ñu wuute xam ngeen ne soo doon bind bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani rahimi ci sab leetaru arab rahmaani alif bi day loolu après nga def noonu waaye bu dee alxuraan karim ku ne xam ne alif boobu maxduuf la alif boobu day xonq kenn du ko bind xeet yu mel noonu nag nga xam ne téereb suñu borom bi daf ko wuute ak langue arabe donte ci langue arabe la wàcc wasama banaynaaha bi aydin wa innaa la muusiun bi aydin bi aydin ñaari yaa moo fay nekk foo dem ci xiraat yëpp saxaaba yi noonu lañ ko bindee woon kon faaw candidat bi itam rasmul quraanul karim mënu koo ñàkk man loolu mënul ñàkk su noppee itam faaw mu xam naka la ñuy maase al karim mooy ilmu dabt mooy jàngale naka la ñuy maase alquranul karim araf bii da nga koy maas bii doo ko maas loolu moo la koy jàngal maanaam wasalaat yi mataat yi lu ne fa mu a nekk loolu faaw nga xameel mu dopt ngir mën a bokk ci concours bu demee nii ak lan dañuy bëgg itam nga am loxo bu rafet ndax ñuy rawante faaw dana am loo xamante ni moo ni séparé mokkal nga mokkal nga bu baax jàng nga mu jàng nga dopt waaye nag su boobaa léegi nag xam-xam bi yéen ñëpp yéen a ko tolloolee su boobaa mën na nekkoon ku gën a rafet loxo kooku mën na jël première. lii gis u bii ngeen yor nii ki njëkk jël première ci édition bu njëkk bii mooy juróom-benneelu at ci at ki jël première ci édition bu njëkk moo bind lii ci loxoom. nekk ab xale ci ci dongo daar yi nekk foofu lii nag dañ bëgg ñëpp man mbind mu mel nii man sax mbind mu ko dàq parce que mën na nekk mais loolu nag laaj na liggéey boo xamante ne bi ci suñu ci suñu euh, su euh, suñuy waajibaat ñun ñun jàngalekat yi ci loolu ñun ci ñun ñi la war ndax xam ngeen ne ni ma war a jàngale xale bi ba mu ba mu mën alxuraan karim noonu laa ko war a jàngale ba mën koo bind ndax ñaari xam-xam yi ñoo mos a ànd ci jamono yonent bi ba tey ci kon bu ñu demee ba benn tànk bi muy mokkal di dem bàyyi fi bind kon su boobaa ñun ñoo bàyyi lu ñu waroon ñun ñoo bàyyi lu ñu waroon te loolu foo dem moo fa nekk. soo defoon soo def benn micro territoire man nga ne fii daanaka mën nga ñëpp mën nañoo tari suratul fatiha ba mu jeex dañ koy mokkal waaye soo ko doon bindlu bu dee téeméeri nit jàppal ne xëy na fukki nit sa xëy na ñoo ko cay man kon day mel ne kon mokkal ak bind dañoo soree kon laaj na itam ñu tàggat gone yi nit ñi mënee jàng ñu tàggat leen ba ñu mën a bind looloo tax nag société bi ngir nit ñi sawar mu def ay neexal ci concours bi def ñaari concours ngir lan ñuy rawante day baax ñu tolloo ay niveau ca la ñuy rawante mën nañoo tolloo niveau ci mokkal ab xam la ak may suñ boroom la tolloo ci rasmu xam-xam la bopp xam-xam la mais bind mahaara la bind mahaara la <laughs> mahaara boobu nag comme nit ñi bokkuli wuñ ko dañ cee rawante te itam nirooli wuñ ko ngir bagg ñëpp sawar looloo tax juróom benn région yi muy Sédhiou Ziguinchor Kolda Tamba Kédougou ak maatam ñoom dañoo dañoo niroo li ñuy wooyee maanaam euh, nawul xat dañ ko niroole dañoo jege nu ñuy bindee bokkuñ ak ñii nu ñuy binde ñu ne nu ñuy def mooy nañ boole juróom-benn def euh, région yooyu bere leen seen concours bopp ñuy rawante ci seen biir ba bañee am niveau boo xam ne danañ mën a bokk ñoom ñëpp ci concours national bii ñuy organiser nii loolu mooy loolu mooy ngir ñëpp sawar ndax bu fekkonte ne bi kii nga xamante ne bi fukki at juróom ñi ngi bind nga boole koo koo xamante ne bi ñaaraat ñaarat ci la commencé bind day mujj taayal bàyyi parce que toujours maa kii moo koy jël ngir sawarloo nit ñi looloo tax ñu def ñaari concours yooyu concours juróom benn raison yi di bokk di jàngal xale yi di tàggat ci bind ñu demee ba même même même mustawa ci bind su boobaa moom ku ko am rek concours nationale bi moom ubbil nañ ko ñëpp képp ku nekk ci juróom benn région yi te mën a bind loxo bu rafet mën a compétir ko marhaban bi na ñëw musaarak ci musaabaqa watani bi nga xamante ne bii moom euh, ñëpp ñoo ko bokk concours bi nag ngir ñu sawar te candidat yi sawar ci neexal yi àgg na ci juróom benn million première bi juróom million ak genn wàll ak juróom million ki jël troisième euh, ñi dem euh, final ñëpp ñu ci dañ leen jox cinq cent mille ñoom ñu ñooy kenn ku ci nekk loolu bu ko sari ay million la ciy def daf koy def ngir soññu sëriñ daara yi soññu dong yi ngir ñu indiwaat bind alxuraanul karim loolu rek la ci jublu ah xawma fii de waaye day jurbel gee ñu nekk juróomi at yi moom daara yi daal bind gën nañoo fonk bind daara yi daawul bind itam ñu ngi bind loolu na dañ bëgg mu tasaaroo euh, ci Sénégal gi yëpp loolu lañ soxla daal loolu daal ci tënk mën nañu ni loolu mooy tànk yi nga xamante ne bii moom moo tax maanaam euh, moo tax maanaam euh, ñu ñëw loolu nag boo gisee baas bi niñ ko préparé nga xamante ne bii xuruf abjadi yëpp dañ koo ber lettre xarf bu ci nekk maanaam forme yem amee lu mel ni miim bu tàmbalee baat nu muy mel miim bu nekk ci ber baat muy mel miim su mujjee nu muy mel ñu tàqale ko nii loolu dañuy bëgg ñu tàggat xale yi jàngal leen naka la ñuy jànge bind ndax am naa aada bu rafet bu ma seetlu fii daaw bi mu fi ñëwee damaa gis ni sud bi seen dong yi dañuy teel a dañuy teel a bind dañuy teel a jàng bind ci seen alluwa yi gis naa loolu bu baax aada jooju mën naa ne yéen yéen ñu ko jiitoo yéen yéen yéen ñu ko jiitoo waaye day mel ni xale bi dañuy bind rek ci seen ci seen bind waaye duñ leen ne bind leen nii loolu laa ci seetlu ndax danaa gis alléw yoo xamante ne bii alléw ji masalan benn bind lay nekk wala ñaari bind alléw ji fees xale boobu kon dañ ko ne demal nga bind xale alléw ji ma seetlu kooku amayet saaloon moom moom la doon bind yaakaar naa séju laa ko gisee alléw ji boo xoolee alléw ji eh, wenn bind la wenn bind moom mooy alléw ji ci ida ida ida shams kuwirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibaal suyirat maanaam ñeenti baat yu mooy àlliwa ji àlliwa ji fees kon kooku teel nañ ko jàngal teel nañ ko digal mu bind lool waaye tàggat nañ ko ci bind kooku nag buñ ko tàggatee ci jàngal ko bind bala moo bala moo wàcc bala moo xaajal téere xaaj bu njëkk bi képp day mën a bind parce que jàngale bind yomb na lool mokkal moo jafe li gën a jafe ñi ngi koy def mais li gën a yomb dañ ko deful mais a yomb jàngale bind moom du dara dafa yomb kon yaakaar naa ne boo ci ñëpp jàppee ñu ñu tàggat ci gone yi eh, département bu nekk ña dàq bind di dajale gone yi ci benn béréb di leen tàggat ba ba ñuy àgg ci formation yi nga xam ne commencé nañ ko bëgg mu law su boobaa dana gën a mën a yaatu xam ngeen ne alimu rasmu ñu ngi koy jàngale naka la ñuy bindee alxuraan karim ñu ngi ciy tàggat suñu daara yi fële ci Touba ak Dabtu ak li ci aju waaye nag bu dee ci maanaam agsi fii xëy na eh, c 3 eh, man manam xëy na àgg gu ci tisaare ko ci ci ci yëpp mais yow man ma danañ ñëw masalan raison bu ne ñu jël fa ñett ñu fa dàq bind dajale leen maanaam ci benn raison defal leen maanaam benn formation donte une semaine lay def wala ñaari semaine suñu delloo maanaam tisaare ko fañ nekk loolu incha allah yow man ma dana ñëw waaye nag li fekk loolu di si kenn ku nekk la mu mën ci daaram mu tàmbale ko bidaay minal yow mu fas yéene daal balañ fiy ñëwaat ñu xam ne daara ji daal moom ci wàllu moom mi ngi ci avancé bu baax a baax di leen soññoon ci concours bi euh, mois de euh, août mois d'août incha allah ci lañ koy ubbi pour man inscription yi lépp lu ci aju danañ ko yónnee saa euh, mi su ngeen amee groupe lépp lu ci ajooti ngeen di ko ci suivre di xam concours fu mu toll dégg ngeen su boobaa dañuy encouragé nañ ñëpp bind juróom-benn raison yi nañ bind ñi nga xam ne amaguñ niveau bu kawe ku ci mën a bind nag na bokk directement ci concours bu mag bi dégg ngeen su boobaa buñ dajalee yëpp ku ne da bind safa paas bu mat ngay bind maas ko bind ko xool ko mbind mu rafet nag noonu la neex Euh, buñ la sélectionné sa numéro téléphone buñ la woowee buñ buñ demee ne bay dem final moom yéen yéen yéen ñi nga xam ne mooy juróom-benn région yi moom su boobaa nag amul xool su boobaa amul xool waaye nag pour pour euh, inscription bi moom kayit bi moom da nga koy xool noonu la neex noonu nga koy bindee soo ko bindee def ci sa numéro téléphone ak dëkk bi mu kii jox ko euh, Saïd incha allah doon nañ ci jot bu ñu dajalee yëpp ñi nga xam ne ñoo génn premier tour ci maanaam qualification yi ñu woo leen ñu def final bi incha loolu daal xam naa ne moom laa ci doon euh, dolliwaat di leen ci soññ bu baax a baax di leen gërëm bu baax tam ci di leen ci soññ bu baax itam maanaam waaw euh, maatam la Sédhiou Ziguinchor Kolda Tamba Kédougou Kédougou juróom-benn région yooyu la kon euh, xam naa daal ci tënk lool looy kàddu yi nga xamante ne moom la ci doon andi suñu noppee delloo kàddu lu ci lu ci waayam ci lu mu bëgg a laaj itam ci lu ci aju pare nañ incha allah pour tontu ci lu ñu ci xam. jégalu ci kàddu yi dama am lu ma bëgg laaj rek ginnaaw bi leen santé gërëm leen ci déplacement bi ak coono yi nga xam ne toggoo ngeen ko ci tukki bi yëpp waaye lépp mu nekkee xaalisan li wajhi laa yal na yàlla fay def ko seen misaan xasanaat man dama bëgg a laaj rek mooy est-ce que am ngeen ay mudakkiraat yoo xam ne da ngeen ko préparé pour gën a jàppale sëriñ ci ñi nga xam ne dañu bëgg a former seen ndongo yi ci wàllu façon bi ñuy bindee alquran mooy turuqu kitaabatul quran comme ni ngeen ko defee ci flyers bi may gis ne ndax am nañ ay muzakiraat yoo xam ne dafay jàng parce que dafay laaj xam-xamu imla laaj xam-xamu xat te imla mën nga ko jàng ci làkk bu nekk waaye alquran dafa am rasmu boppam comme ni nga ko waxee ndax am na téere yoo xam ne ko préparé wala ay muzakiraat yoo xam ne da ngeen ko préparé. Hmm, loolu ci wolof lañ koy firi. téere bi ñuy jàngalee rasmu muy aljawhar al munazam bi nga xam ne moom lañuy jàngalee fële ci Touba ak li ci ajo ñu ngi koy jàngalee foofu mais ci wolof lañu koy firi su fekkoon ne da ngeen ko xam man nañ ko yónnee jox yónnee leen téere bi yónnee leen tam kii wax yi su boobaa da ngeen ko mën a jariñoo waaw mawjud loolu am na loolu am na waaw ab téere la téere la boo xamante ne Ahmad Chine xiit yi moo ko taalif dëkk Mauritanie waaw téere boobu moom moo moo di saaro fale daara yi moom la ñuy jàng ñu ngi koy fiir ci wolof di ko jàngal te ñi nekk foofu yéen bu ngeen ko soxla woon mën nañ leen koo jox waaye moom wolof wolof wolof lañ ko firi danaa xamul nag xëy na bu ñëwee fii euh, loola ci daal la aju mais mawjud yàlla lu ngeen ci am di iskaal tam suñu ko waxee dañ ko leen incha allah allah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yen fa tabaarakallaahu di rafetlu tamit jotaay bi bu baax eh, jotaay bu mel ni moom lu ko gën amut xanaa bu mel nii rek eh, jotaay alquran njàngale alquran eh, incha allahu taala képp ku toogul jotaay bu mel nii mënuñu ëpp moom incha allahu taala tey dañoo bokk si ñoo xam ne ñu ñu yàlla tànn la si bési aljuma tamit ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala seen yéene yàlla ko yàlla matal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amuñu leen lu dul alquran eh, suñu àdduna ak suñu alaxira yëpp suñu démb ak tey ak suba yëpp alquran moo ñu koy jàngal kon nag yéen bu leen jëlee tànk yu mel ni ngeen di koy defee ngir yàlla ak yonent bi ngeen jël seen coono bopp ak seen alalu bopp fa tabaarakallaa ngeen ñëw ngeen di koy delloo si jullit ñi fa tabaarakallaa yéen de moom yéen a ngi topp tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dundam yëpp njàngale la woon dundam yëpp njàngale la woon te njàngale moom su fekkee diine lislaam am na war na am président xam-xam mooy président bi kon nag ku jóg nag ci tànk yooyu di ñëw di naan na ngeen jàng di fàttali nit ñi di ñuy jàngee surtout nag si bind comme sànq wax nga fi lu am solo bu ñu fi defee micro territoire ñu wax fi téeméeri nit nañu jàng faatix mun nañ ko tari waaye buñ nee nañu na nga na nga jàng fi léegi na nga bind fi léegi Fatiha dina jafe lool te lii tamit day jàppale ñu bëri démb rek ñu ngi doon wax si benn jotaay ñun ak taalib yi am na ñu fi toogal léegi loolu su nekkul jàngoo bind doo ko mën a xam euh, wax nga fi léegi bi ay din ñaari yaay yooyu am na ko benn alxuraan moom tamit am na ñoo xam ne boo leen waxee fii la ñu bind la nañ jàng la aakiluuna hamza bi la jiital di ko jàng démb rek am na fu ñu ko doon jooytu kon nag lii njàngale bi ngeen di si soññu nit ñi ngeen di delluwaat nit ñi dellu si loolu kenn amul seen pay yàlla na yàlla fay ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, si tuuru président macha allah Moustapha Wane ak ñu mu bàyyi fii nekk ko nekkal ko fi Thierno Seydou ak mboolem ñi mu àndal fii yëpp ñun daal amul lenn luñ siy wax xanaa di ko rafetlu di leen ñaanal jàmm euh, yàlla na leen yàlla may ngeen dellu si jàmm lépp li ngeen si mbébét yàlla may leen lu ëpp loolu si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si barke setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi toog jotaay bi tamit am na barke jotaay ñu ngi toog jotaay alquran setu yonent bi toog ak ñin ah, jotaay boobu maa fa macha allah yàlla ñu si yàlla defal tawfiq ak taysir si barke Seydina Muhammad ñu ngi jaajëfal ñëpp tamit taalibi sëriñ yi tamit woote jafewul wuy si moo gën a jafe li ngeen wax fi sànq amuñu benn temps ku nekk bàyyi na temps am ñëw na fii toog di leen déglu ngeen di ko expliqué lii mooy seen dund ñoom lii moo leen di bégal lii la ñu xam ah, ci lii la ñu dund kon nag loolu tax ñoom tam ñu bàyyi lépp ñëw ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. anta bi ni'mati rabbika bi majnun